jëf ji li ko waral mooy ñun ñëpp xam nañ ne dañu am loo xam ni dañ koy xeex li ñuy xeex mooy virus bu ñuy wax Covid 19. xeex bi ñu koy xeex nag sooy xeex ak loo xam ni doo ko gis laaj na yow aussi nga làqatu ba loolu du la gis parce que su la gisul du la mën a jot moo tax ñuy wax ne sénégalais yi war nañu gën a respecter mesures barrières yi état bi teg mooy soo amul looy dox loo xam ne lu am solo la toogal sa kër parce que soo toogee sa kër sa njaboot d'abord ngay protéger. nga protéger si njaboot protéger également say dëkkandoo suñu jogee ci loolu euh, feebar bi ñëpp xam nañ ne tey soo amul contact amuloo loo xam ni laal nga ko wala jege nga ko ko am yàlla mun na la cee musal kon vraiment dañuy lancer daal en appel wax sénégalais yi daal nañu dimbale état bi dimbale président la bi dimbale ministre de la santé ba mesures yi nga xam ni teg nañ ko ñu mën ko suivre ba nga xamee ni vraiment virus bi dootul mën a gën a law ni mu lawee nii actuellement. don bi euh, kii dix cartons euh, kii la hydroalcoolique gel hydroalcoolique euh, mille cinq cent masques ak quarante boîtes savon moom la ñuy jënd pour parce que fi mu toll nii état bi ñu toll mooy xeex ak kii bi propagation bi donc loolu aussi dina permettre pour gën a mën a xeex comment dirais-je virus bi ni muy lawee nii ci dëkk bi.

moo tax ñu jënd li ñu jënd nii pour permettre aussi au niveau régional ñu mun ko mun ko euh, séddale ba nga xam ni nit ñi dinañ mën a renforcer mesures yooyu également lancer waat un appel rek euh, wax sénégalais yi daal vraiment nañ suivre consignes yi ñuy joxe yi suñ ko suivre suñu réew dina ci mën a génn. duñu def lu dul tàmbali di gërëm docteur Diallo mook délégation bi nga xam ne ñoom la àndal ñëw jagleel li nga xam ne mooy comité régional de gestion des épidémies bu Kaolack benn. Euh, jàppale ci bu aju ci wàllu xeex bi comme niñ ko xamee ñun ñëpp xeex bi nekk na loo xam ne lu jafe la ndax li ñuy xeexal gisuñu ko te ni muy tasaaroo wi jéggi na dayoo ba tax na fan yi ci ginnaaw kaw Kaolack enregistré na ay kaawam yu njëkk loolu rek xëy na deful lu dul féddali ne euh, kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci askan bi war nañoo gën a bàyyi xel comité bi nga xam ne moom lañ teg ci en place jàppale ko ci xeex bi ngir mu mën a jaar ci anam yu mucc ayib ba tax na loolu duñu def lu dul woo ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk Kaolack jiite ci askan bi ci boppam xanaa di leen bàyyiloo xel rek ne li nga xam ne moom lañ tëral pour xeex euh, amaana day jalgati li nga xam ne moom lañ miinoon ci wàllu dem ak dikk ci suñuy mbiru bopp waaye du jubluwuñ ci lan lu dul njëriñu nit ñi rek bu ko defee ñu mën a fànq mbas mi nga xam ne moom moo ñu gaar euh, beneen appel bi ñu ngi koy jëmale ci acteur de développement yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci région bi di leen xamal na rek ñu ngi leen di tàllal loxo di leen wax ne xeex bi day soog a door ndax ñun ñu ngi soog a enregistré suñuy cas ba tax na jàppale boo xam ne mën nañu ñu ko defar rek euh, xeebuñu ko benn yoon ndax ci askan bi rek lay dellu te du def lu dul dimbali ñu ngir ñu mën a xeex mbir mi li ci mujj rek mooy kilifa diine yi kilifa aada yi comme niñ ko seetloo ñu ngi ci weeru koor bu dee ci jullit yi waaye réew bi moom benn la ay woy gëm rek ñoo ko ŋànk ba tax na ñu ngi sàkku ñaan bu baax a baax ci kuréelu diine yi fi nekk yëpp di leen wax ñu ñaan bu baax a baax ngir euh, natt bi nga xam ne suñu borom moo ñu ko teg moom mën na koo teg ci lu mu ko gën a yombee di leen ñaan rek ñu sànni ci ñaan bu baax a baax ngir jële ko fi